ab journal euh, su mu juumul mu di le témoin mu ne Barth met en péril entre Babacar Ngom Cheikh Youm euh, et hmm. ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci seen coalition sàmm sàmm kàddu yi hmm. euh, ma ne kon de mel na ni bu fekkente ne met nañ ci situation boobu it xëy na ñoom seen responsabilité génn ci ndax ñoo ko jël def ko seen seen tête de liste waaw ñoom ñoo ko jël def ko seen tête de liste à fin Euh, ndax xam xamoon nañu risque yu ci nekk ba pare nangu jiital ko. stratégie la boo xam ne ñoom ñoo ko déggoo seen biir pour jiital ko on ne saurait le dire mais lu wóor ba wóor mooy. xam nga Barthélemy nga bëgg ko nga bañ ko kenn yéenewu ko mu bañ a bokk ci ay jongante. tout à fait parce que même bu fekkee am na féewaloo seen diggante ak Pastef ak euh, à travers son mentor Khalifa Sall. Mhm. lu mu munti munti munti am. am na combat politique yoo xam ne fii Sénégal dëgg-dëgg porté na ko. tout à te jiitu na ca. Mhm. Euh, te daw ci ginnaaw. Mhm. loolu il faut nit ku nekk rek nga delloo ko li mu moom. tout à fait au de toute considération loolu xamee nañ ko euh, ñu bari si ay sénégalais sax boo farawuloon ak moom da nga doon naan kii nitu fitna la. voilà nitu fitna la ko dégg moom. kon kon mhm. boog nitu fitna jiitu na sax ñu koy ñu koy bëgg joxañee ki nga xamoon ne Ousmane Sonko. donc euh, ak li xewoon 2011. Euh, si wàllu fitna ba kan rot si. Mhm. si dóorum fetal ak cong gi nga xam ne dañ ko congoon tey te teguñu ko woon fenn fi nga xam ne yoon la. Mhm. te loolu sax dafay dëggal li nga. Mhm. taxawaay bi mu amoon. xëy na moo waraloon. ba situation bu ñu mel daloon ko. voilà donc de ce point de vue là il faut que ñu gisee ko noonu. léegi nag ñoom lëkkaloo nañu seen biir. ba pare ñoom tenoor yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp si ténor yi. kenn demu si si wàllu liste départementale ñoom ñëpp dañoo dugg si liste nationale bi. boobee. ki ko jiite malheureusement moom moo taxaw assemblée nationale ne condamné nañ ma feeg juróomi at doo dootuma éligible. Mhm. moo ko waxal boppam. ah oui tout à fait. interpellé Aïssata Tall Sall te Aïssata Tall Sall bu doon keneen la signé na acte de radiation bi nga xam ne moom du fekkee bu ñuy dissout assemblée nationale mu doon député. Mhm. waaye Aïssata Tall Sall mënu ko woon. Ah, moralement dina xaw a. non moralement yi déontologiquement mhm. parce que ba mbir ma xewee ñuy teg loxo Barthélémy Dias suñu kanam la. bañ koy yóbbu commissariat central suñu kanam la bañ koy garda wi suñu kanam la bañ koy placer sous mandat de euh, mandat de dépôt suñu kanam la loolu yëpp Aïssata Sall moo nekkoon avocat am ba situation bi fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu mujjee léegi nag dem nañu ba en dernière instance la condamnation est devenue définitive mm-hmm. dès lors que la condamnation est devenue devenue définitive doo xool sax constitution doo xool sax beneen loi mais boo tënkoo ci code électoral bi rek ci article vingt neuf. Mhm. da nga naan xam ni kii nii en réalité pour mu éligible dina doon problème. Mhm. te inéligibilité boobu bu fekkee ni recours bi nga xam ne coalition ànd suñu liggéey ànd suñu liggéey suñu réew ñoom ñoo ko déposé mhm. bu fekkee ne conseil constitutionnel euh, constaté na comme nuñ ko waxee ak moom nu mu ko fàttalee woon ay taal sall sa assemblée nationale conseil constitutionnel bu ko dëggalee cest dire que li témoin bind nga te nga junj ko léegi. Mhm. du Barthélemy Dias kese lay yóbbaale day yóbbaale liste bi yëpp. Mhm. lu tax moo ko mooy bu mhm. fekkee ni. conseil constitutionnel dafa appliquer sa propre jurisprudence su ma ne conseil constitutionnel appliquer sa propre jurisprudence mooy comme législative deux mille vingt deux. liste nationale coalition Yewwi Askan Wi te Ousmane Sonko nekkoon tedd de liste ba dafa nax saay du woon problème mu ay nit problème mu nit la woon te nit kooku est-ce que dañ ko ne dañ koy remplacer remplacer wuñu ko dañu ne comme nit moo am problème dafay yóbbaale liste bi yëpp jurisprudence conseil constitutionnel toujours liste suppléant coalition Benno Bokk Yaakaar ba mu amee jafe-jafe remplacer wu nit ki mhm. list bi yëpp lu yóbbaale. kon boog fii dañuy naan conseil constitutionnel bu appliquer sa propre jurisprudence liste bi yëpp lay yóbbaale mhm. donc loolu nag malheureusement mooy le danger. qui guette euh, la coalition sàmm suñu kàddu waaye du ñun ñooy wax ndax dina jàllan du jàll il appartient au conseil constitutionnel mmh. véritablement de valider ou d'invalider la liste nationale euh, bi nga xam ne moo soxal coalition bi Barthélémy Dias jiite mais euh, sauf est-ce que amul différence ci ñaari situation yi parce que muy listu Yewwi Askan boobu muy bu Benno Bokk Yaakaar foofu question parité la woon mais bu dee le cas de Barthélémy Dias on parle d'inéligibilité ah, te bu ñu bu ñu xoolee article L cent quatre-vingt-cinq si ma mémoire bonne hmm. bu code électoral li mu wax mooy en cas de décès wala inéligibilité bu candidat dañu koy remplacer par un autre candidat ouais. du même sexe waaw moom moom moom loolu loolu article bi mën la wax mais lii expert yu bari andi hmm. confronté ko en réalité euh, mooy que ni bu ñu moytuwulee ju conseil mën na appliquer sa propre jurisprudence ba pare nax saayal liste bi. parce que yi tamit boo gisee day la ne met en péril les candidatures de. met en péril Anta Babacar Ngom Cheikh Tidiane Youm Déthié Fall et autres. kon perception boobu ma développé. Mhm. moom journal bi tam perception boobu la am. tout à fait parce que tamit am na ay yeneen experts. si mhm. wàllu woowee si wàllu yoon yoo xam ne tamit. Mhm. ñoom noonu lañ ko interprété. dëggoo moo tax ma ne la il appartient seul au conseil constitutionnel. de voir après lu si am lu si des li yëpp ñuy def ni mhm. interprétation rek la tout mais il appartient au conseil constitutionnel et au qui est source de source de moom kese moo ko mhm. mën a interpréter pour valider ko wala invalider ko yóbbaale liste bi wala mu may ko ñu changer ñoom seen tête de liste mhm. malgré le risque euh, bi nga xam ne ñoom jël nañ ko si li nga xam ne mu ngi si kaw boppu Barthélemy Diaz euh, jëm si condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf. d'accord alors on espère voir euh, la décision du conseil constitutionnel très rapidement ci li nga xam ne mooy jëm ci mbirum candidature Barthélemy Diaz waaye noonu tamit beneen candidature muy bu Ousmane Sonko gannaaw recours bi la coalition Takku Sénégal dugaloon on a vu ses avocats ni ki démb ñu dugal si li nga xam ne moo di seen mémoire ngir défendre euh, seen client layal ko ci ci recours bu nu Euh, dafa am loo xam ne avocat yi dañ ko soulever quand même te pour man mu mën a xëy na ñu bàyyi ci xel njortu ne conseil foofu rek mën na faa jëlee une décision. Mm. yu fekkee dañuy attaquer une candidature attaquer ko comme un candidat investi par la coalition PASTEF alors que c'est le parti PASTEF en tant que sans coalition moo investir cette candidature est-ce que loolu nekkul source rek pour le conseil mu mu ah, rejeter la requête. waaw parce que xam nga yàqamte mm-hmm. te ñoom. ñoom ñoom ils sont adeptes des recours et des faux recours. <laughs> quand man je me suis la question. comment est-ce possible parce que déjà ñoom ñooñu même avocat yooyu. Mhm. ñoom ñoo dugaloon recours ne dañu dañuy attaquer candidature ba euh, Bassirou Diomaye Faye te ñëpp xamoon nañu ni yëfu tàppale la woon. dëggantaan parce que amuloo lu mënoon tënk jamono jooju conseil constitutionnel ba mu invalider la candidature de Bassirou Diomaye Faye boo ñëwaatee fii tamit coalition. boo koy xool dans l' mhm. dans l' esprit mhm. coalition la. Mhm. mais dans la lettre c' est le parti qui est mis en avant. ah oui parce que su ma nee dans l' mooy investir nañu ñeneen ci biir listu Pastef. te bokkuñu Pastef. alors que dans la lettre. c' est le parti pour dëggal li ngay wax ci déclaration ministère de l' intérieur bi mu déclaré candidat yi ci liste yi. Pastef la def. voilà mu ngi noonu. Mhm. donc ce n' pas ce n' est dénomination bi du coalition. Mhm. c' le parti Pastef. dans la lettre. mais dans l' esprit une coalition parce que ñeneen dugg nañ ca. d' leneen li mooy. Mhm. l'ordonnance numéro 001 du euh, décembre. bi bàyyeekoo si président du tribunal de grande instance de Dakar Ousmane Thion. Ousmane Racine Thion. voilà dëggal non radiation Ousmane Sonko et demander ñu réintroduire ko sur liste yi. te bu ñu yeggee sa conseil constitutionnel conseil constitutionnel si lu mu sukkandikoon pour invalider candidature bi mooy mm. absence de pièce justificative matalewul woon lu su mel ni euh, quittance bu bàyyeekoo si caisse des dépôts et consignation parce que administration tappale moo fi nekkoon di def lu ko neex sous la directive sous les directives justement de euh, des des des gouvernants yu fi nekkoon mm-hmm. parce que Cheikh Issa Sall euh, moom mii dul am na liste waaw waaw bu. si si waaw mu ne ko dafa naa am naa def ne am na liste. si si waaw léegi moom bu ne moom déposé di déposé ci ñu koy ñu koy ñu koy. ñu koy dawloo. daloo ko daloo daloo ko daloo ko daloo ko nu ñu ko waxee daloo ko. xom bu xom daloo njukkaloo. daloo ko eh, fay ko borom. fay ko borom. Eh, eh. tey jii bu ñu ko fayoon borom. après fi lay toogaat di ah, yóbbu. dina doy waar trop dina doy waar. maanaam nit boo nekkee si dara. del sóor ni dafay jeex. quand même ce niveau y' a y' une rupture parce que fii moom. ñëpp xam nañ la conséquence yi moo am le dernier mot te mooy jël décision gis amul benn problème. Mhm. direction générale des élections mi ngi nii. Mhm. cëndeela bi fa cëndeela bi fa nekkoon. Mhm. avec